asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziar euh, fii ci nag euh, Yoff euh, ki nga xamante ne nag moom moo di Pawlish Mbaye moo fi amal ngénteem tubaarkaal lu am solo am bi ay jumeaux donc nag li ñu mën a ruusal nag ci nuyoo bi rek mooy biisu ngoon na daal tuddee doom ji. ak ci Ouzin tey la ma waral sa teewaay ci ci bisu bi. waaw Pawlish mbay Pawlish mbay damaa ñor ñëw maamu sekk na ne moo tax ma ñëw. de ku ku ne Ouzin Keita ne ku ne ku nekk ku ne Ouzin Keita ne na Pawlish dama naan sama rak si aar sama doom si aar waa sama mag la si jëm du kii moom mën a ñor waaw. ku nekk ak uh, bis bi daal moo mën a ñor tubaarikàlla. tey jii maanaam tey jàmbala paire nga wóot ndax balaa nga def. Uh, jàmbala moo tax dafa soog def balaa maa xuus. mais tey baa siif am rek ay siif yooyu rek. ma xam ko maa ngi soog a ñëw soxna si <laughs> ayca <laughs> noo def ma yëngal ko comme d'habitude su ma gisanteeg moom dama koy farcé ayca mi ngi ko ayca topp ma ñu dugg biir ndax yaa ngi xool doom ndayam ak doom ndayam mii di Pawlish jël leen ñoom ñaar ma xool li ngay jël ay ni na sëñ Bass mooy wax barke Alaaji Fall dama la jox e, e, kaay <laughs> topp leen ak téléspectateurs ñu daal dugg biir ayca mi ngi ko yàlla rek barke sëñ Tuubaa ak lay sentir ko daan na biitu rek laa ci sentir. waaw sant yàlla sama doom la Pawlish sama doom la sama xarit la. sama doom la sama xarit la donc euh, damay damay sant yàlla rek toujours waaye ça me va droit au parce que Pawlish moom sama féete la waaw. daf maa ba pare wan na ñëpp ni moom laa féetewoo waaw wan ñëpp ni man la bëgg donc damay am tawféex rek wax dëgg yàlla. mais mais nga nekk référence nekk koo xam ne ñëpp la bëgg euh, sooy dégage sa caractère mais mais secret boobu lan la. mooy secret bi nga yor nii rek nekk ci maag ñëpp ci ne nag ci benn yoon. biis doon la gis euh, maanaam ak beneen biisu euh, yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mu nekk sa maman tey ji la nga nu wax maanaam sa ginnaaw. Euh, maanaam décès bi nii rek la sa sant yàlla yàlla borom suñu borom moo soxla bu soxlaa jaam ñëppay ñàkk dañuy gëm yàlla rek nekk ci li nga xamante ne moom la ñu war a nekk ba fekk ko waaw ah, parce que fii li ko yóbbu du fi bàyyi kenn donc euh, tey mi ngi nii encore yóbbuwaat na sama papa Père Gaston ah, ku ne xam ne sama diggante ak tey ji sama liggéey bu excès bu fii daanaka cinquante pour cent yi Gaston Mbengue la donc euh, damay sant yàlla di ko delluwaat di ko ndax sama ni ma mel si Pawlish rek noonu la mel ci man ah nga xam ne kenn du ma laal wax dëgg yàlla euh, lu ma neex neex na ko te képp koo xamante ne Bijou Ngoné ex neex ba sénégalais yi di seetaan Bijou Ngoné grâce moom la donc damay sant yàlla bu borom suñu borom bu baax a baax a baax a baax. Bijou nga doon wax na bu la nit tooñee kañ nga koy tontu 8 mars te 8 mars wax nga te 8 mars. waaw waaw yooyu soo seetloo si diggante yi euh, sujet bi nga xamante ne moom mooy indi à chaque fois loolu la ñuy def tudd Pawlish Mbaye moo ñu indi mënut nga wax boo demee set tamit di nga gis mais lu koo concerne Bijou Ngoné non day xaar ba mars. loolooy war ni maanaam farata ak ak ak ak ci lu baax mooy tax nga wax. kese mais waxaat ma loolu waxaat ma loolu bu ma nit bu ma nit dama lay tooñ te lu la mayan loo koy def dama koy yee. <laughs> nan xaar yu mars kon Aïcha merci beaucoup mi ngi noonu nag Aïcha Aïcha euh, programme bi tubaarkàlla ngéntali xam nga ni bisu li ma may may ko kenn en exclusivité ne ma si saara man yow rek laa bëgg yaay sama doom kon bu ko defee dëgg la xew bi dina neex na na moom nu doom ji euh, doom ji góor gi nag mu ngi ko tuddee Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam Aïcha Leral TV ça va chauffer